ngeen fàttali ko fàttaliku ko parce que moom ba muy nekk di def au niveau en France mu nekk un un acteur international boobu ñun ay xale yu ndaw lañu tuuti tànk ñu di ko seet seetaan ci cinéma ak yooyu kon yéen ñi nga xam ne da ngeen di jeune dafa di baax yenn saa ngeen waxtaan seen biir fàttaliku ñooñu nga xamante ne ñooñu ñooy les pionniers parce que démb ku ko fàtte doo xam tey. a joué loolu la yu bari sax. waaw la wax leen ne lii ngeen am tey man lu tax man ma am ci fierté parce que damaa fekk doom ji ba muy juddu soo fekkee doom ji ba muy juddu mu dem bay am teraanga soo fekk soo yow soo dee boroom kër sa xol day set. Mhm. première ré asos réunion bi nga xam ne ñu ngi koy def pour def fii. man la ñu jëkk seet si sama bureau laa leen recevoir maa ngi koy fàttali comme fekkoon démb y a neuf ans de cela yéen ñii ñeena ànd ñëw fekk sama sama bureau boobu maa ngi yor sama cabinet foofu laa gis maladie ma pare gis maladie daal leen gis ngeen ne da ngeen am projet pour def lii nga xam ne moom ngeen def tey ma nekk sama xel ñii am am nañ fitti ndax dama xam li mu àndal ak li ko li mu soxla yépp pour mën ko def mais gàcce ngalaama parce que 9 ans yéen a koy def di ci am réussite mais félicitations am di am loo xamante ne nag maa koy soññ sama rakk tey Thiès dafa am difficulté parce que lii moo dul yoon ngeen di toltalaan di àbb waa MSD ñu baax lañu mais yéen a waroo am seen saalu bopp on a besoin d'une monsieur le maire. monsieur le maire mi ngi nii toog. ñun yàlla defar na ba ñuy wut ci légis local yi passé bokk na ci ñi nga xam ne ñun dañu daagaanoon baatu askan wi ci ci ñun bañ koy ba dagaan dafa amoon projet bu mag boo xam ne dañ ko am su doon suñu sago projet boobu yéen ngeen téye ko moom mooy une grande salle multiculturelle boo xamante ne non seulement day am salle boo xam ne da ngeen fay mën def ay action parce que tamit def fa tamit ay euh, salle de formation centre de formation au métier de la culture ak salle d'exposition ak d'activité culturelle loolu daal moom laa ko jël teg ko ci sama loxo jeune frère pour que incha loolu mu doon suñu Euh, mbébét moom mën ko def. jërëjëf maa ngi dénkaat bu baax sama njaboot boo xam ne ci yéen la bokk. muy soxna daam fat daam tey nii ci mairie ba dama bëgg moom tamit projet boobu mu daal di koy def projet ñu xeex ko ba incha ci biir Thiès. Ah. parce que des fois bu nit ñi juum na parce que Thiès mën nga am jafe-jafe am am fi espace mais bu ñu ragal wut espace ci commune yi nga xam ne dañu tàq ak ñun tey biir Fandène war nañ fa mën a am espace léegi dara soreetu tey Kër Moussa war ngeen ko xeex ba war fa am espace wala ilaa ñu ngeen xeex ko ba am ko ak euh, yeneen canaba euh, wala yeneen yi nga xamante ne lu si sori nit ñi mën fa dem di fa am activité loolu moom mooy indi ndam te loolu laa leen di ñaanal yàlla ñu ko yàlla defal di leen sant leen gërëm ay sant